rice growers in Fuladu Pachar in a state of despair. Many parts of the Central River region depend on rice production for both commercial and sustainable purposes. The means apart from feeding themselves from that they grow, the excess is used to educate their children and other financial needs of the family. Pachar in the lower Fuladu is no exception to this. On a telephone conversation with some residents of the village by Forea, Numi Baba, a rice producer says for the past years they have been suffering in their rice fields without meaningful in intervention by the government waaw lii béykat yi maalo yi la si Fuladu Pàccaar ñooy jooytu seen naxar ne comme ñoom su paasee affaire yi dunda bi li des si maalo bi njee béy loolu la gaay dee use pour jàngal seen doom yi ak yeneen financial soxla yu gaay dee am ah, waaye gis nañ ne depuis comme at yi passé yëpp daal gouvernement bi duñ si dee duñ leen dee dimbale si dara si affaire yi comme jàppale leen daal si yëfi mbéy meeg yooyu noonu Julde. Um, su dee ne report bi it's anything to go baay I think uh, government bi dafa war a dimbale gaay uh, because mbéy mi dafa am solo trop si Gambia bi because agriculture contributes a huge chunk in our GDP so as such ñoom su dee ne lii la ñoo amee seen dundin a fii la ñoo supporté gaay seen family and pay the school fees of their children then government bi war na dimbale gaay tamit ñu make sure ne xam nga kon ka fii lañ koo amee ñoom ñu ngi uh, do what the vision 2020 Yahya Jammeh lu mu doon oote you mm-hmm. eat what you grow and grow what you eat so uh, I think that it's very important pour government bi tamit xool that area comme ñang nu ko fi waxoon rek mbay mi dafa am solo I think even this coronavirus waaye suñ doolelee um, area mbay mi rek dafa you tolof tolof bi ak jafe-jafe bi dafa wàññi tuuti because gis nañ ne nit ki daal lu munti soona soona waaye su amee lu moo lekka rek uh, coono bi daf dee xaw a wàññeeku waaye su amul lu moo lekka rek uh, daf dee andi jafe-jafe si mm-hmm. dundinam bi so I think ne loolu noonu dafa am solo trop. waaw loolu am na solo ñang um, because bi report bi sa gis na ne ñu ngi wane ne bir april sa daf dé féka tombee na sen ñaareli harvest harvest mo neka gop mm-hmm. ah comme manam si at bi dal dañ jël gop ñaar yoon april bi daf dé tombee ne gop ne ñaar yoon bi commencé waati di def mbaliñ pour sen ñaareli lifin bi pour sen ñaareli mbé wa lu am solo la te gis nga malo mo xam nga mom la réew mi di dundé mm-hmm. xam nga pàccaar la xam nga dafa bok ci bir jaxari pàccaar la nekk xawma ma gis nga fofu waaw area boobu bu ñu ko développé woon rek mun na maalo boobu mun na dundal Gambie te konoon nag mooy lu ma wax léegi rek mooy man lu ma gën a gis si économie bu ñuy ragal mu daanu ëllëg waaye comme ni ko Jules waxee nit soo amee li ngaa lekk rek loo am si mun nga koo manage mm-hmm. because the main problème mooy nit ki pour mu am lu moo lekk nit ki lu moo lekk su ko amee li ñu li nit di lekk si yombee réew yi développé yëpp loolu leen rawee loolu la mm-hmm. waaye fii dund bi daf fi seer soo si ploosee nag économique bi am problème dafa métti moo tax léegi opportunité la nawet mu ngi jubli si il faut nguur gi nag jox cër ministre of agriculture li ñu ko daan natal sax natal ko lu ëpp loolu gis ne mbéy mi moom li si war yëpp taxawu neen ñu koy def ñu mu gën a sotti rawat mbéy maalo bi dugub yi ak euh, tooli gerte yëpp ñooñu li war si ñoom buñ leen ci jàppalee rek foofu su bàyyee rek fii baax bu ko gis nga lu ñoo bay yëpp mu ngi si syndicat yi ñun mm-hmm. ñi moo si du xëy lekkalu nga xam ne dañ koy bay amul li si bëri li ñoo bay la soo su ko defee ñu dooleel leen ñooñu itam ñu war a dooleel leen mm-hmm. ñu nga xam ne ñoo nekk si mbiri maalo moom bukos war nañ dem ba bénéfice bi génn génn si seen biir rek lu ñoo dundee ak lu ñoo jaay jëfandikoo war nañ mun a dem ba di sarse ay troc muy ñëw komba mhm. su ko defee muy nekk si si yi mhm. gis nga loolu suñ ko amoon rek dañoo gis suñ bopp si kanam waaye su fekk ñu ngi koo tardé rek dafa day waar mention nga fi former président bi ko amon interest si mbay la plan mo moo desoon rek mhm. ba benn ruq la ko defoon muy érièm waaye da ngaa développe ñi koo def mu am njëriñ waaye Adama Boro bu demoo Mankambakunda ruuj fa axla rek pour bay mm. loolu mënut a dundal sam biir mm. Mankambakunda mm. kon nag na ñu koy def flodi bi ñu mën a bay ñëw fa nekk ay Boyram Gàlleman ndax yooyu yëpp ay baykat leen nga dem Saalum dem Ñaamena yooyu yëpp ay baykat leen ñu ngay dimbalee si rek bu ñu amee rek su ko defee dëgg bi dafa dem si kanam waaw